lii nga xam ne nag moo xew ci jamono ji àddina bi ñëpp am ci ak jaaxle kenn ku ne di wax médecin di recherche nit ñiy wax naan lii koy faj lii koy faj lii merum sunu borom la subhaanahu a taala ah, li nga xam ne nag moo xew ci jamono ji métti na tar na waaye boo xoolee kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk àddina seeni doxalin war nañ koo seetaat ndax lépp looy def na nga ci jiital suñu borom subhanahu wa taala ca xam ni nguur yàlla rek moo koy joxe moo koy xañee kenn mu koo xañ kenn kenn mu ko jox kenn ku dul yàlla suñu borom moo yore wërsëg moo yore dund wàllu góor jigéen ñi ñuy def nag ci àddina ak wàll yi nga xam ne nii mooy bon bon yi wor yi rey yi tëj yi toroxal yi gis nga li nga xam ni moo euh, xewoon boori Birmanie ay jullit ñu leen di taal jéppét ci kenn mosu cee wax baa nga xam ni wax ji amul solo nga gis armée li nga xam ne moom la armée di jëriñ mooy tey lii ñuy def jóg dimbale aw askan loolu la armée jëriñ waaye du jëpp di reye loolu armée taxu koo jóg keroog ba Serigne Saliou wàccee liggéey la crise bi wàcc muy 2008 àddina bi yëpp a ngi koy fàttaliku 2008 crise boobu sàmbaram xamal ne fukki at ak juróom lay am fukki at ak juróom yooyu nag dafay dëppoo ak résidence bi nga xam ne moom lañ defoon Serigne Touba ca Njaareem ci sëriñ ku ne xam na sëriñ la sëñ la sëñ Touba waxoon ci sëñ Saliou deux mille huit crise bi nit développé banque yëpp nërmeelu ñu dem deux mille onze printemps arabe taxaw faagaagal naar yëpp 2015 ci laa waxoon ni balaa baa ngi ni tiim mag tal karam loolu jaaxal ñépp ba aj ga ñëwee téeméeri nit ak juróom fukk ñoo ci jëkk faatu ci gri ba ba ñu tàmbalee junniy nit faatu ca ca buxante ba kon nañuy delloo mbir yi suñu borom ndax kat fekke ni tey yàlla def na njiit yi yépp delloowaat seen bopp ci yàlla lépp xéwali sa borom dana wàcc dem ci kaw suuf waaye nag fekkee ni dangaa jël say pexey bopp yàlla seetaan la ndax yàlla kat moo ni boo doxee jëm ci man ma gàttandu la waaye boo geesoo ma bàyyi la ak la geesu kooku suñu ko fii ci kaw suuf nag yàlla amu fi lu dul néegam muy jàkka yi ak église yi muy bérébu jaamukaay yàlla bérébu wéetal yàlla li nga xam ne nag moom laay digle mooy nañ dellu tijji jàkka yi ak jumaa yi ca fonkaat daara yi ndax kat Macky Sall nee woon naa ko na def attention ci daara yi waaye gis nga tey bii liy xewee xel yépp ci daara yi lañ nekk ak seeni ndimbal ndax alxuraanu karim moo tënk lépp lépp loo bëgg attewu ci àddina boo demee ci alxuraan fekk ko fa coronavirus bi nag fitna la joo xam ne yàlla mi ngi ko jaare ci jëmi doomu aadama ca nag da cee bëgg a fajal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax kat dañ moon deux mille vingt deux deux mille vingt deux danaa fajal seydinaa Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ba àddina bépp teg seen bët ndax lan weddi gi ñu koy weddi ak tuuma yi ñu koy tuumaal ak fitna ñuy fitnaal askanam wi muy xeetam wi kon nag nañ delluwaat xeetli jullit yi ànd ñi nga xam ne ñëpp ñoo bokk ay ñoo am ab giine ñu taxoo ci daje fa yàlla suñu borom subhanahu wa ndax kat ànd jot na fi ñu toll ndax coronavirus bi kat boole na ñëpp tey ginnaaw boo na ne ñëpp ànd boobee démb la waroon a tàmbali tey door a ñëw nañ delloo yàlla njukkal li nga xam ni nekk xam naa ko ci suñu borom xamal ma ko mooy benn ci sëñ Muntaxa Mbàkke al Bachir sam def na ci moom keroog ba nga ñëwee fii ni ma nawet bi loo ci xam ma ne la sëriñ Muntaxa bii de bokk na ci yàlla rus ca bu wéetee ñaanal ñaan yàlla du ko gàntu mer yàlla dafa diis ca merum yàlla mii kat seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ca lii ñuy teg seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma nga nag soqi ko ci occidentaux yi foofu la soxi ko fitna ji moo waral yàlla jëlal boppam fas yéene ko fajal boppam jaare ko nag ci doomu aadama déglu li ma fitnay góor jigéen ñëpp la koy la koy daganal kay ma nga jóge ca kaw ak xaalis bu bari ak pression boo xam ne dañ leen koy teg ñu daganal ko kon la fi xamoon jamonoy loot gis nañ ko saa su ne bu ñu tewul ci yoon yàlla wan ñu boppam Serigne Saliou daan wax ni ku fàtte yàlla yàlla da laa fàttaliwul boppam kon ñun dañoo demoon ba fàtte yàlla yàlla fàttali ñu boppam ñun dañoo demoon ba fàtte yàlla yàlla fàttali ñu boppam faaw ñu delluwaat ci yàlla ci xam ni lii ñu defee ni mooy dara muy pouvoir alal du dara du dara yàlla moo yor lépp loolu lépp li ko dàq mooy aaju faju tey jii nit ñaa ngi am aaju mun la faju muy coronavirus aaju faju moo dàq lépp kooku mooy capital nañ dellu ci yàlla yàlla mi nga xam ne mooy fajkatu ajo bi ndax kat ku ñu takk ba teg la ñoo ngi ca yaakaar yërmande yàlla kon nag bis boo nee tolérance zéro yaa génn nga ci bisimilahi rahmaani rahim génn nga ci yërmande ji kon nag yërmande yàlla ku amul yërmande ci jaam yi doo mën a am yërmande yàlla ku amul yërmande ci yi doo mun a am yërmande yàlla ca bala nga xam ne yërmande yàlla ñëpp ko soxla day nga dem ba teg yàlla teg lam nattu fépp suuf bu duggoon si bët dong dong nga fàtte loo nekkoon ak pouvoir boo mën a am kon nag l'essence message bi maa ngi koy euh, lancé ngir ah, saafara yàlla la def ko fii ci réewum Sénégal